Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonsoir, bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 3 mars 2022. D'abord, l'actualité nationale. Ce 3 mars 2022 marque le premier anniversaire des manifestations spontanées dans plusieurs villes du Sénégal en réaction à l'arrestation de l'opposant Sonko dans l'affaire l'opposant à Aguissar. Un an après, je cite, Le besoin de vérité et de justice reste urgent pour les familles des 14 personnes tuées, dont 12 à la suite de tirs par bal par les forces de défense et de sécurité selon Amnesty Sénégal. Hier, en Conseil des ministres, le président Macky Sall a condamné les propos polémiques de Serigne Lamine Sall à l'entame de sa communication. de chef de l'État a présenté ses vœux à la communauté chrétienne à l'occasion du démarrage de carême. Le président de la République a notamment condamné avec fermeté au nom du gouvernement les propos outrageux à l'endroit de la communauté catholique proférés à travers un organe de presse. Le président de la République a ainsi invité le ministre de la Communication et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel à rappeler au médias et organe de presse le rôle et responsabilité majeure dans la préservation des valeurs de la République et la consolidation de la concorde nationale, indique le communiqué du Conseil des ministres. Le 25 février dernier, une manifestation contre les terrains offerts aux Lions du Sénégal à Yoff a entraîné des échanges de pierres contre les grenades lacrymogènes entre des jeunes lebous et les forces de l'ordre. Dix personnes ont été arrêtées par les enquêteurs. Ils ont été écroués. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à un attroupement non autorisé, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, destruction de biens appartenant à l'État, violence et blessures à agents de la force publique. En prélude de la commémoration de l'appel de Seydina Limamoulaye, la 142e édition cette année, le président Macky Sall a rendu visite au Khalif général des Layennes, Mamadou Makhtar Laye. En magnifiant la vie et l'œuvre de Seydina Limamoulaye, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de préserver la paix et le vivre ensemble tel qu'enseigné par Seydina Limamoulaye. Il renseigne la présidence de la République. De leur côté, le Khalif et l'ensemble de la famille ont marqué leur gratitude au chef de l'État. pour les dispositions prises pour la réussite de l'événement, informe la présidence. En Afrique, un gouvernement parallèle intronisé par le Parlement libyen et qui s'efforce d'inverser l'exécutif en place à Tripoli a prêté serment ce jeudi enfonçant le pays dans une crise institutionnelle qui rappelle les heures les plus sombres de la guerre civile. Le Parlement a approuvé mardi Ce nouvel exécutif dirigé par euh, M. Bachaga, un ex-ministre de l'Intérieur, Une visite de haut rang de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prévue jeudi à Ouagadougou, a été annulée après l'adoption d'une charte de la transition au Burkina Faso où l'armée a pris le pouvoir fin janvier. Selon le communiqué de l'organisation, la CDAO ne précise toutefois pas les raisons de l'annulation de cette visite qui n'avait pas été publiquement annoncée au Burkina Faso, mais ajoute qu'une délégation ministérielle se rendra à Ouagadougou dans Sur l'international, afin de mieux combattre contre l'armée russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un décret permettant aux volontaires étrangers souhaitant soutenir l'Ukraine d'entrer dans le pays sans visa. À partir du 1er mars, un système d'entrée sans visa a été introduit pour les étrangers qui souhaitent rejoindre temporairement la Légion internationale d'Ukraine, indique le décret présidentiel précisant que la décision ne s'appliquait pas aux citoyens russes. De son côté, la Russie a dévoilé ce mercredi son tout premier bilan depuis le début de son offensive en Ukraine, annonçant que 498 de ses soldats y avaient été tués et que 1597 autres avaient été blessés. Selon le porte-parole de l'armée russe Igor Konachenkov, qui donnait ces chiffres, les pertes du côté des militaires et des nationalistes ukrainiens s'élèvent à 2870 tués et environ 3700 blessés. Nous terminons par le sport. Après la défaite enregistrée face à Bombardier, le Lion de Guédiawaye Balagaï fera face à Boy Niang, terrassé dernièrement par Tafatine, le promoteur de lutte Gaston Beng a calé l'affiche devant les opposés pour le 1er janvier 2023. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.